Omar jooy ma doom bu góor ndax yow Omar nga mëbaleel ma sama saabal ni mu tegal ma lu jigéen di soxla ci biir yaa gën ci man yaa gaaw ci man sa teraanga yàlla bu ci jëkk hôpital rek te demee ba da ci xaj yàlla doon jëkk paracetamol rek man de sant naa wallaahi daf du gërëm kuy ñaan du gërëm mm-hmm. moo tax ma gërëm la mm-hmm. wallaahi ku ko def bu ko wax la dëgg voilà yow moom bis ni tey yaayoo naa la maa la te di nga xam ne maa la jur ba faaw yow yaa ma gënal sama lii ah? yaa ma ko gënal. yow yaa wax lii. ah dégg dégg nga. nee naa. may wokkee naa ma jox ma téléphone bi. xaaral ma jox la ko gis ni may wokkee naa ma jox ma téléphone bi. Eh, yaa wax kii. ma baax ma man sama doom. maa gën ci man gaaw ci man.

loolu ah, lan la. lan gis lu ñu tukkee jamono. ah loolu moom am na yow daaw nga xamante ne yow Aminata Sow yow Aïssatou Diop fii la ñu nekk. Hmm. teg ñu bët bay bëgg dee rek ñu na man sama dictionnaire defet bokku ci de. xam nga daaw dañoo yéegoon ba cinquième étage. mais bi yoon moom bu yóbboo ñu préparé jël ascenseur ndax yéeg bi fi nar a yéeg dafa sori de. xam naa ne sama papa laa na la. bu la neexee sañ dem ba vingt sixième étage. loolu la ñuy def dañuy จ้ะเรียกสิ่เด็ยแบบนี้ยงกันเรียวอ่านตะเกียบมาเป็นไปเรื่องเหยียดกันเรื่องห้าวมันก็เสียที่ห้ามัเจ้าพลาดเราหมดหมดมาแล้วเราเดินชุดไม่เลือกเสียไม่เลยก็เสียตัวมาคำสั่งไปเลยว่าสโลคอนสูสนะว่าเจอากิสเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนั้ comme la gaaw bàyyi ba suba la tabaski nga indi sa toq xar moom tigili boobu ñoo ñu safee bàyyi ma ndax ma tukki si saf yooyu laa leen laa ko kuy bu ngam bangam laa bëgg ngay di dox bàyyi ma nga naan xar yooyu gën a saf bon kuy bu ngandel la bëgg xam nga tollu ci xar bi mais xam nga pap bi ci ginnaw bi moy bi yor xari si ginnaaw bi wa koku ma ko don comp comp xam li tubaab yi naan comp comp maa ko doon bi dank ndànk xam naa incha allah ba fekk tabas na fekk mot si kàddu yalla yow ko kuur kuur ma la yalla yalla fa kenn yaa ngi noonu yow daa nekk fi man di cotiser ak man li wor ci kër gi lepp lépp tabaski bi man mako ko def ajaawa ngi nii yére greffage ba mu taamu nag mënuma laa wax serai bi mu seer. damaa ko ko jënd ah maa yaayam bi. ah loolu mënoon na ñàkk. comme que kay te doo ko ko defal. waaw dama ko ba ci toll xam nga dama ko doon def bàyyi leen loolu. bàyyi leen loolu. yéen di tabax yëpp def naa ko moo ci kàttu yàlla. yow kay pour mag la fa kenn. gis nga bu ni yow sa kan kan wax. ah kan, kan ah suñu

nijaay laa dégg ah waaw peut être que loolu la ñuy wax sa bu ah lii lan la lii lan la ci lan nag ah wax bu tonton fi ah nijaay kii sa lan la kii sama lan la si lan yow eh kii sa la waaw moom laa bëgg xam sa la sa la si lan nijaay kii sa lan la waaw ma sama lan la lan lan lan la ci yow tax la yow jabar di la ni farata ya, eh. man aw buru keureum nak ma degi ah, jabar nii aw buuru këram laa loolu mënul jabar kamo fi aw buru man. ah eh, yow nag bàq yi. yo man pousse mo ni eh. jabar jabar dama am tension de dama am tension de. ma ne danga may wax kii kan la laa la wax. kay kay kay naan sama jabar. sama jëkkër. da ngeen def ni da ngeen may mujjee perte rek. yow may mujjee perte. yow ma ne deewal ko góor daa manqué de. deewal ko wax li fi nekk. xamoo lu la leer yow. yow <laughs> eh, waxagoo eh. la leer waxagoo sa soxla yow su ma la ko waxee sax war njaboot ga ca dekk ga may dundal may sang may wor bu tebeski joté man may def man gënit la may solal may def xarum tebeski wala ma la li may def jole waxal ak man la wax dama am ta tension de dama ni ci dalal la waxal joxal job la ko xew fi soo ko xamé rek wax ma man tàccu bee ma ci jëkk jaar ala bu ndaw ñew ko dee raj ji raj 18 ans may ak mom musuma wax ni amna jabar tay ñew taxaw ci sama kanam nan ma jabaram la yow nak tante nak yow nak sa pègre nak mang koy soog gëm tay ah. yow ba nga fi ñëwé di wérax la ay kanam ma jël sa sac fo né sa bàjjan nga duggal loxo ci bi waye na la léna non lay jappé té sac yóbbu ko ci mbéd bi sand ko yow mu a go xam sama pègre moy aawa tay mo aawa ëlëk yow mu a go xam sama pègre la yeen sa baay kan moy aawa ba paré ma aawa pire ne ko benn aawa mu neex leen ne ko benn aawa dama bëgg na may ma sama jamm yow ko nga ko ko ak ko ko leen ko ko nga ko ko ak ko ko wala ma wala ba nga mel ni ne yow yow may gànje yow may gànje eh wax ji jeex na yaay yow may gànje laa bëgg man sama papa laa bëgg a waxal bu yéen ñaar ñi ñëpp yow may gànje papa xam nga laa la bëgg a xamal man xale bu ndaw laa sa doom laa te sa nawle laa damaa bëgg nga wax ma sama yaay mooy aawo wala ma jadd ma awa jadd maatam mi taxaw mooy aaw eh, eh, ma ne nga bàyyi loxoom laa may leen ma eh, may leen ma gone gi bu leen ko dugal ci yëf yëf yëf yàpp aca ah, laka ca biir aca moom de muy mel ne lii nii lim la laaj question bu am importance la laaj kii du xale la waaye la